Yo. Yo. It's dead in this town. ayca salaamaaleykum mbokk téléspectateur Web TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk internet yi aussi maa ngi leen di nuyu bu baax namoon naa leen ah dëgg du neex tey nag maa ñëwaat fii indi leen émission bu bees tàq émission boo xamante ni bii macha allah lépp loo xamante ni bii rek day ambiance dama ciy dox parce que Halima Show la dëgg du neex te lépp loo xamante ni bii rek day programme boo xam ne bëgg ngeen ko gis ah man maa leen ciy demal def ak yéen yu baax euh, bu fekkee Bambey la aussi man maa leen fay présenté ah nekk fa di defanteeg yéen xeetu baax xalaat rek ci Bambey inshallah allah fa dugg pour defal len lepp lo xamne da len di euh tabaski ma ngi ñew inshallah allah ko xam tabaski xamne ambiance deug du neex fi ba tabaski ba semaine ba di wat yeb ay ambiance la wara doon pourquoi pas ma wara a def le tout nak en ah, indi lo xamanteni bi daf len di beggal ñu diko waxtane deug du neex ma ngi nuyu ñepp han ah, di nuyu sama yaay di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi léegi Fallou danga may may Viviane bi rek euh, papa bi suka defé ma dadi ziar man suma sañoon dinga toog fi gunge ñu ci kanam yow papa man wet naa te muy fii di fale foo mën nekk soo ma man wet naa bu dee dina tàggoo kon doo fi jóge yow papa maintenant neofi fumatolu satakande lajene man maintenant ayo jigéen ak juddoom jaar-jaaram ak jomam jëmmam ba ba muy dégg jabar jaare ko ci atam atte ko ci atoom ba ci ëttam xibaaral koy xéewalam te ba tey ci suuf ak ban la boobu buntu bànneex ba nee ndoxu teranga ak mbégte ci boobu min def lay balle dund ta amoo bàyyi tar na waaye yaay moo gën a sama bos dem na waaye leer na ma ni may gis li na mu yëg ba ci kaw asama ndax nga xam ne ñu ngi fi bàyyi la papa man suma sañoon di nga toog fii ñu MashaAllah, cứ nắng papa autant pour moi parce que son bi ma sama xol parce que ku sori ci man deug du neex ndax ke a fekk parce que amone na bobu machallah mais ma ngi jéggalu émotion bi la euh, ndax dafa nek papa jo xamanteni ni bi machallah daf ñu tanal yaay ju baax bëggoon ñu trop surtout man sama xarit la won sama lepp la won mais nak yalla bu soxla ñun jaam bi dañuy ñak dañuy dellu sante yalla bu baax di wax alhamdullilah da parce que lu mu def rek lool moy li gën. di wax aussi ñi nga xamante ni bii dañ ñàkk seen papa ko man maa ngi leen di masaw bu baax ñi nga xamante ni bii aussi ñoom am na ku sori ci ñoom laf mais gisuñu ko maa ngi leen di bokk ak ñoom naqar bi parce que man xam naa ni ñàkk papa metti na mais sant yàlla ba mu ñu joxee femme boo xamante ni bii laf cat muy suñu yaay parce que dafa nekk jigéen boo xam ne dafa brave ba pare ñun exemple la ci ñun benn ci man man sama yaay mooy sama idole mooy sama lépp moo joy, ma papa joy, ma dara sama tonton yi aussi ñoom ñoo joy jooy ñu papa muy tonton Doudou asan lay, ab su ma limee ju may juum ak sama tonton yi bokk ak sama yaay ndey ak bàyyi tonton Mbàkke yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax li leen wax ni joy ñu papa ndax yéen macha allah daal képp koo xamante bi rek am nga mbokk bu génn àdduna may la clip bi aussi di la mastaw waaw parce que tey émission bi lii la daal dëgg du neex maa ngi jéggalu mais nag Halima Show la ñu wax du ñàkk parce que xel bi moo sori mais il faut ma ñëwaat duga dugaat ak yéen ci ambiance waaw parce que émission bi moo ko laaj maa ngi jéggalu nag ni ma waxee ak yéen mais émission bi la mënul ñàkk waa di leen wax ni rek àddunaa ngi nii ñi dañuy dem ñi des fi parce que loolu la yàlla dogal léegi dama leen di mayaat rek son boo xamante ni bi macha allah. temps moy def buzz muy waali ritambale indil ma rek ma dadi di yaa ma xam da parce que sama émission mo laaj ma ambiance touti ndax yene sama xarit di sama doomu nday pourquoi pas mais dama fay jaaree nak ah duma ko may kenn ku du sama yaay boy fa job ah may ko sama tante ci kër yoy nga xamanteni bi machallah ay temps marayam ah tande adama kenn du yeen yeen ay borom bax ngeen di dem aussi ba kër mam As di ko may tonto As aussi yow it yaa tax jooy papa. temps mi coow coowet ga sama mpaañ yëpp maa ngi leen koy may ak sama sang yi di leen wax jël leen yi tambale bi yéenay borom ay ca bu baaxee rési ñu dem solo macha allah macha allah lii tambale bi am na solo tax na ma fàtte sama tristesse et mais mënul ñàkk voilà la vie àdduna moom ñi dañuy rey ñii di jooy mais lu mu ci mën di doon rek dañuy dolli wax alhamdulilah parce que bam ñu xañee kii may nañu koo xamante ni bii laf ca daal kenn du yow maman chérie faatu Adoré Jooba Jubba Pa Mansour Mbaye aussi dañuy ñaan yàlla xaree ko na bu baax parce que yow it kenn du yow Mbaye ndax euh, da nga ñëw rek dugg ci ñun gën a defar suñu fii jooy ñu woon papa jooy ñu woon dara waaw tey reer rek la ñuy jooy ci yow di wax yow yàlla xare la àjjana yow ak képp koo xamante ni bii fekki woon nga ko ah euh, di wax macha allah tamati cuun maa ngi lay nuyu bu baax yow ak sa waa kër yow yàqoo ci dara gis nañ ni nga jàppee sama yaay ji bu baax a baax kon kenn du yow mbay daali waa ayca léegi damay wax rek kani euh, dañoo nekk ci émission boo xamante ni bii. du benn émission boo xamante ni bi Halima Show kese la loo xamante ni bi lu bees tàq tàq tàq moom laa leen indil képp koo xamante ni bii rek ci wàllu ambiance ngay dox man dama fas yéene ànd ak yow defanteeg yow lu baax dëgg du neex waa ki ma génne ci bu yanj bi ak kanam gi après dama di baaxee numéro am dëgg du neex damay dem ba yëmbal rek ah nga ni bi tamit nee nañ feccum riir bu neexee nday ji moo jàpp ci mbagg yi ñoom bàyyiwuñ ma benn yoon parce que depuis ma nekk dalal baax di dem ba yëmbal di nuyu tan ami ah kenn du yow sama mam jooju wa di la nuyu bu baax mère Diagne waaw kay merci la di ñom passi la ñom ñom ñom ki euh comment dire ñom jaara tànday bayuma kenn rama aussi suma limé damay jóg maa ngi koy may kep kuy sama soppé nak jallu ba yëmbal Bambey waxal jàmm ah te ngeek sama tante yoy fa nekk karabalik ala nekk ci next nekk ci dekk ci baña tok tere tu galé pap xol tay sa fils fu mu top lo ñame ñak lo ñame lo ñame lo ñame lo ñame ñak lo ñame ñak lo ñame lo ñame ñak hey am naa ay défaite yu maamu ay metti yu muuma yeeg échelle mu daanu gis na ay serpent yu maandu maintenant mu ma seet trompé gelu jamu rus na gëm nit ku ma xamul voté Afrique ma solol gumba kagul bañu ma jeunesse bu nelaw wa jeunesse su néew gën bu yewu kalu nek ci yoon fente fi yene yu bon rend fi gende yu mbaw buur sama deretu góor yow yow neexu mu toog taluma kebetu coow ñoom dañu ceene te amuñu jom sul naa ay a yoo xam ba may raam seeni seere ngi daw dama ko xare fiis dama job pour sama avenir sama doom fiis dama añee xiif reere ndox jàng nga amoo fit amoo ngor collu ba laay wàcce sama bopp woo ko ñi mee jéem a kuré taax million laay wanteere samay show trône bi dafa suure samay taat ku bot bukki ay foo la yéen seen talent mooy mun fenn ñimeen bu boo laay muur nit du jub suul gore ba doon esclave moo gën jaay sa ngor ba doon buur loxo bu tayal du tabax lu dëgër loo gën a bëgg na a pëtëx maa tax ba labuñu ñu di ma nëkkal welcome to life in the jungle laa fa may yóbbu man soxla ma pëna wala daaju ci ñax wala pëndëx te naa ba te jàpp ci ëllëg ñaari loxo gaana ma ko gënal sa gaay yi réewantu dam leen di rey ku jëmam yarawul sa néew du réew jëlan nu ñu jëlee ceet bu bees di nga nangu ba sa cëri beeñ sama jéem a gën seen def fay naa undu fay wesh wesh def ni ñoom li may def rek dee seeni pop ni bàmmeel teg teg seeni prof samay maîtresse lañ buñ fi coow ci rab bi maay sa yaa ma mën bu deeku dàkk fen lim fi yor ci son du xaaju jeex jaa ma gën mais ay ma dàkk fay diw sa gel mi gën di jàpp ten diw gelu ñu dàkk yàq der ñëpp niil ni lambu lak de guerre ku bët bukki ay foo xaji maw la man jàpp naa ni ni kee defee noonu la li nga def ci rab bi man dama mujjee waaru ayca macha allah dib bi am na solo ah maa ngi koy may képp koo xamante ni bii sama soppe la di dem ba yëmbal di leen ko may yéen tànday ah. maa ngi leen ko mayaat encore une fois damay jàll aussi rek euh, ba fi nga xamante ni bii mooy Pikine fekk fa samay frère ah Iseynou As yéen ñëpp maa ngi leen koy baaxee di dem ba Touba aussi di ko may samay mag lafcat kenn du yéen dégg ngeen kontaan naa ci yéen Sadio Fall mi ci Bambey ah Fama Fall. Ya, xolen ci dara da sama bu mag ñu nan ko jabar man bu buso borom ciéb yu safi ki nga xamanteni bi lepp lu mu ciébut bëgguma lepp lo ginaaru tamit lekuma sa roof amul barke yonent bi ma wax li ci yow kenn di yow ci mim rew ah Fatou job di la wax yow dundal nak sama yaay joju yow lu may sajj ci yow rek duma ma doyal lepp lu ma fi tek rek jox la nga baxé ko kula neex di leen waxaat encore une fois que émission bi nekkul leen li nga xamanteni bi moy alima Show alima Show nak day ñëw ak yeen ba Bambey inshallah lepp lo loo rek moy sen programme lepp lo xam bëgg ngeen ma baxé len ko ci xéetu bax bax woné len ko fësalal len ko dëgg du neex ba mu fës man ngeen ci andal ma ak yeen show bu amul fenn dëgg du neex damay ak yeen ci clip ba légui di len wax aussi que ni dama bëgg à chaque fois samay son may lancer walé message parce que aduna bi dafa xawa doy wax façon bu ne ngay gis da ngay nek xalé rien que pour bëgg juk am ñu lay euh des fois aussi ñi la wara jappalé dañ lay ngay juk di dem ak sa bop mais façon bu ne ngay déglu mais damay wax né à chaque fois yow mi nga xamanteni bi da nga nek ci yoon té bu nekké yoon bu baax nga am pour dem no bul geesu bul déglu parce que fi ku amul ndon amul gën gi mindeef mom moo ñu kenn du mom sallallahu alayhi wa sallam ta dafa amone ay non ko gënoon a bañ kan la ay mbokkam kon ñun pourquoi ñuy bañ ay wax pourquoi ñuy bañ a déglu yenn kii mënul ñàkk parce que fii ku baax ñu wax ci yow tey ñu aw yoon bu bon amaana ka ni wax ñu ci ñoom wala li ñuy déglu mooy loolu kon nañu jéem a defaraat jikko yi jéem a defaraat xol yi parce que xol mooy lépp nit à chaque fois lu jar mooy boo yeewoo teg sa tànk mu tegu li nga war a def mooy ka nga dellu sant yàlla bu baax parce dundam bi la bàyyi ngay dund defaloo kenn dara defaloo ko dara moom tamit tey ki nga xamante ni bii daf ko yóbbu mën naa wax ni moom gënoo ko ba mu yóbbu kooku bàyyi la fi kon yow mi nga xamante ni bii bàyyi na la ci mondam bi ngay continuer di dund li nga war a def mooy heure boo xëyee doolil nga sant ko bu baax a baax a baax parce que su ko neexoon tey mu def la leneen mais tey may na la ñaari tànk may la ñaari loxo kon li nga xamante ni bii visé nga ko pour dem pour defi loolu mu nekk yoon bu baax demal déglu. parce que booy déglu rek mooy loolu sa yaay bu ci àndeek yow rek ak ñi ci war a ànd ak yow parce que doomu aadama óor boo xëyee rek sàkkul sa ñaanu way jur man de sama yaay mooy sama idole mooy sama sëriñ parce que jooyuñu dara depuis ñu nekk xale teel a ñàkk papa ba léegi dafa nekk jigéen boo xamante ni bii macha allah kon man tout le temps damay roy ci moom ak samay tànta kon am na yoo xamante ni bii nañu rafetal xol yi rafetal jikko yi parce que émission bi nekkul Alima Show kese mais comme te xale sax. kani man mi di leen jox ay leçon man maa gën a yees mais comme te baaxuma damay bëgg ñuy sottante xalaat di waxtaan li nga xamante ni bi mooy nekk ci société bi ñu ko war a wax dëgg du neex ñu waxtaanee ko daf may neex parce que xaw ma dara man tamit waa bëgg naa yéen it seeni xalaat du yàgg dinaa ñëw di am ñu may dalal fii ñu ci sottalanteeg man gën ma jàppale ñu jàppalante di leen wax nañ gën a yaatal xool yi daal encore une fois ndax tey am na ko am alal gu ne gàññ mais ma ngi tëdd ci hôpitaux yi mënalul boppam dara te tey bu sañoon yàlla def mu am santé jug di doxi soxlaam yàlla def mu jug di nekk ci ay activités am yow mi nga xamante ni bii nag suñu borom bi ma ngi la jox lépp loo xamante ni bii man ci yow boo mënee lépp nag fii kenn amul parce que tey jii borom alal ñu wax ko ñu bañ koo wax am nañ waaye amaanaka ka ni ñee nañ koo xamante ni bi yoru dara kon yow mi nga xamante ni bi yàlla def na ci yow rek fan rek ngay nooyi sa fan di gudd nga nekk ci santé condition yu baax dooli sant yàlla damay jall aussi ba ci prison yi ndax ña fa nekk amaana ni ñoom ña fa nekk ñoom ñoo ñu gën kon dama leen di ñaanal yàlla yalla def ñu genn fa ba ku ci nekk la la fa dugaloon mo xam muy erreur mo xam lu mu mënti doon ñaana la suñu borom bu baax bu bu fa duggat di dem aussi ba ci hôpitaux yi ñi nga xamanteni bi dañu teud febar ma ngi ñaan suñu borom bi yow mi nga xamanteni bi, yaay borom kun fa yakkoon yow ya mom jambi bi dama lay ñaan ci barke sayidina Mohamed ñoñu teud nga fëgg ñepp seen bop ku nekk wat say activité ñi nga xamanteni bi seeni poste dañuy xey di dang-dangi dara nekk ci ma ngi lay ñaan nga defal len luñu suturlo dina ñaan jàmm mu sax fi di nuyu sëñ Muntaxa Mbàkke bu baax borom jàmm ji borom ree ju neex ji kenn du yow Mbàkke bala ay sa ci mim réew yow bu ñu amoon say fukk yu mel ni yow Sénégal day jëm kanam coow du am dara du am léegi damay dem rek dugalaat clip rek du neex ma defaat ak yéen ambiance loolu dina ma neex. sais que tu as l'idée d'avoir un bon mec de qualité. Un mec posé, parce que je ne fais que te fatiguer. Cette fois-ci, c'est pas des faux billets. Non plus, j'ai pas assassiné. C'est des bêtises, c'est des conneries, on m'a inculpé. J'avais confiance à mes amis. Ils m'ont balancé. Ce qui m'est arrivé, ma chérie, la police m'a recherché on doit s'en aller haut, loin de là-haut. Je veux t'amener haut, chérie. Incorrect, suis incorrect, suis incorrect malgré tout ça. Rapper kama Aya Nakamura Suis son jaja Son jaja, wey son jaja Suis son jaja Nyingi sigi na nyingi nyo Jamo nyari gun nyari shira ak knife Jaran nga ma rock every time Jaran nga ma jay sama life tonight Wallahi Suma gene ci lii danaa baaxi Yenn saa yi Talk on one of them police, that might die. We'll never go back, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no. Je devais me lancer, fallait prendre des risques avant d'y penser. C'est décidé, on l'a déjà fait, on doit avancer, bébé. Incorrect, suis incorrect, suis incorrect malgré tout ça, elle m'aime comme ça. mbëggeel mooy defloo nit lu ne dëgg du neex waaw bëgg ki nga bëgg mu bëgg la nag jar na lu ne aw kay jar na daw ba ci àllub kaay des fa moom lii laa wax leneen amul ndax mbëggeel dafa bari doole suñu borom bi moo ci wàcce mënuñu ci dara te moo ñu moo ñaale ak ñuy bëgganteeg yaa ma gën a xam suñuy om parce que waaw kay yàlla bu defee boole la ak góor bi nga xamante ni bii macha allah bëgg nga ko mu bëgg la loolu doy na sant yàlla waaw mais nag xale ngeen fidèle xalé jigen ni tamit pareil na ngeen fidèle yam ci benn goor bo len ko bëggul bu len ko gëm lolu amul bu leen lekk xaalisam ngeen baal ma nak man talibé Serigne Salif bu may wax ni ok enfant bien préparé sponsorisé par sa maman bëgg na yooyu wa xalé bi nga xamanteni bi bii gëmul lu dul ñaqi boppam bi nga xamanteni bi gisul lu am avenir bo xamanteni teni bi stable na pour mën a satisfaire yaayam parce que dafa sonn ci ñun nag Diop waaw léegi damay demaat ak yéen rek ñu may ma Viviane ma daal di dalati ci góor ñi tabaski baa ngi ñëw régler leen di jël seen appel yi waaw kay bon nga ko dem say mu romb laa ku la waxoon ki dina yor est-ce que dinga ko gëm laay fi jeexagul war sa ko jàmbe yàlla nit dina am te bu suba mu ñàkk yàlla loo fi am wala nga ñàkk moom la dina la may xefa xippi mu nanguwaat ko Viviane li mu wax dëgg du neex yéen ñi ngeen xamante ni bi yéen am dee leen jàppale ñi nga xamante ni bi ay néew doole lañ bàyyi boo leen amee rek di wane seen doole am am saxul ñàkk aussi saxul fii képp ku fi am rek suñu borom bi moo la may mun na ko nanguwaat ci ay seconde kon pourquoi pourquoi soxor soxor amul solo man du ma ne soxor sax dama naan pour quoi réer parce que am na yoo xamante ni bi nit ma ngi koy def jàpp ni soxor la wala defante alors que du mais euh, ñaka xam la nañu defal xol yi aduna amul solo fi kenn ku ci nek li nga yor day jeex parce que ku xalaat ni euh, set metu percal kesse mo lay top ci kaw suuf kon war nga xamne alalu aduna du dara yen ñi am de len gessu ñi nga xamanteni bi amuñu contane na ci yeen dama len di jox nak numéro ki ma defax ma Allah ba mané xa xol ci kanam gi nga xamanteni bi bu defarul du baax da gudu neex euh, ngeenar soxna lañ kay wax wa salon bi man ko tuddé Cheikh Ibrahima Fall ma ngi nekk di euh, comment euh, dire euh jël len numéro téléphone bi euh, da ngay def 77 nga def 285 99 ah, nga def 56 ni moy numéro ngénar ki nga xamné mom mo jaar ci sama sama sama kanam ba ma nexa xol beli belli tuuti dëgg du neex wa bëgg na yooyu wa kay xam nga des fois nak ya ma gëna xam <laughs> affaireu u ni moy mooy wa bu len mako jappé wa kay Eh, di len wax ni rek wa numéro ma ngi nonu ngenaar soxna xam nga nak tour bi day turu séeréer mok sama jabar gi ay mbokk lañ ndax sama jabar séeréer la ta mom des fois bo tuddé séeréer ya ma gëna xam ta man bëgguma mu mer ndax dama ko lem jaar je lem toro géri série comment dire Assane émotion bi la bu len mako jappé aussi dama len di jox rek euh, numéro ki nga xamanteni bi mom mo fi jaax muy kan Serigne djum waw ka nek yëmbal xalé bi yow loo sisewut baxul yow est-ce xam nga ni lepp lo laal man dama koy ñime waaye lépp loo laalut bëgguma xale bu góor bi nga xamante ni bi mooy maalaw ku tiir wax tuuti jëfelu pataa xale bi nga xamante ni bi bu jàppee tusi na mu koy def oo ëpp na man kii dama koo bëgg ci sama xol ndax sa njàmbaar sa am jom waa kooku mooy sama góor hmm? sama chéri chéri <laughs> dëgg du neex maa ngi leen di jox numéro moom Malo Couture la may nekk yëmbal soo wàccee estation yëmbal rek koo ne Malo Couture laay laajte dinañ la fa yóbbu ak tabaski bii di ñëw mu defanteeg yow lu baax te dama koy woo aussi hmm? mu ñëw tamit sponsorisé ma waaw kay ak sa yeneen indi renfort bëgg naa ba léegi waaw dëgg du neex man xeetu baax yooyu j'aime trop waaw kay léegi dangeen di jël rek numéro Serigne jum da ngay set 77 ba sal ma ñaari 7 yi ne la ca côté ba nga daal di def 954 waaw kay defal 954 après nga daal di def 99 euh, soo paree nga def 60 72 euh, euh, waaw moom ngay def mooy numéro Serigne Dioum. 954 99 72 numéro Serigne Dioum Malaw Couture maa ngi lay nuyu bu baax borom yëmbal yaa jaar ci robe bi nga xamante ni bii macha allah te am na yu yu muy def dama mu ma ma yu pourquoi pas léegi boo leen paree aussi dama leen di jox numéro jaara jaara yooyu dama lay woo nga ñëw ci samay émission moo xam muy fësal moo xam muy alima show bi waaw kay nga man lu ma ngi nek étage du Passila route de yëmbal waaw booy dem kër tànday danga koy romb waaw kay xale bi nga xamante ni bii xale ñaq jariñu la jigéen boo xamante ni bii dafa mën boppam mën booram mën dëgg du neex loolu ñu naan jigéen bu mën góor boo koy wër demal ci jaara parce que ba dara doonul woon dara la yor machine am di ci liggéey ba tey macha allah yàlla def mu yor place boo xamante ni bii laf cat moom it lu mu suusawut bugguma dëgg du neex yam ma defal xeetu baax yi ma defal ci ko indil mais ma ko fi daal di yemale rek ah, jox leen numéro am du tee ba léegi moom it dama koy woo mu ñëw sponsorisé ma na ma dar waaw ndax nee nañ lu rey gerte deeca ku weddi laaj gerte ba ca lu rey mbuum deeca di moyes ku weddi laaj gerte ba ca xelli woon it diwam waaw te ku min sàkket da cay daru jaare yaa jàppale ñëwal jàpp sama combat dëgg du neex ndax nee nañ feccum liir bu neexee nday ja moo jàpp ci mbagam te man dama leen a ñime parce que damaa ñëw yëmbal xoolee woo leen ma benn bët bu ñaaw ma nekk fa nak di daan sama doole ngeen japp ma rek ta. yalla tax kon waye mbal awma ma fay ma yow mi nga xamanteni bi kep ko jaay ya di lejum du ceeb du sama ma borom jën yu bax yi ah yaayu lay yaayu alima fat siise ak sama rak yu ñaaw di góor yoy ah yaayu seigne fallo eh, yaayu seigne fallo mën na wax ni ki njaaxaanaay lay tëddee muy ma awa nday jonne kenn yeen paka macha allah maa ngi leen di gërëm bu baax waa yëmbal ngeen ma considéré comme seen doom jooy ma fa yaay jooy ma fa papa léegi ma ngi jéggalu wax waxaat du bari wax mais da ngay bëgg rek li ngay wax ñëpp jot ci léegi da ngeen di jël numéro comment dire jaara ma ngi nek ci euh, route de dem tali marin ba da rombo, koy romb waaw da ngay def rek jaara couture lañ koy wax nag dëgg du neex borom du yow ku tir ngay am nonu ma ngi dend ak njëya mom ngay jot soga jog jóg njëya yow ci cheveux yu bax yi kep ko tegalu greffage bugul waaw kesh kep ko xamanteni ni bi poseloo ko wala nga jox koy e ongul rek man buguma waaw dama leen a ñime nag ndax dama tester sen loxo deug du neex legi da ngay jël numéro jaara da ngay def 77 nga def 116 après nga def 04 euh 52 waaw mooy jaara poroxaan moom dinaa leen indil xeetu baax yi muy def waaw damay ñëw lancer leen lu am solo bëgg naa yooyu waaw kay léegi su ko defee rek damay nuyoo di gërëmaat di tàggatoo ñu tënk ko fii kontaan naa trop ci yéen émission bii laa leen indiloon di leen wax kontaan naa àdduna mu solo nañ defaraat xool yi defaraat jikko yi te xam ne fii suñu borom bi mayewu dafa able te lépp loo fi gis day jeex kon na rafet tabaski bi di ñew tamit ñun xalé yu jigéen ñi nañu yamalé suñu bëgg-bëgg baña jaay suñu ngor parce que benn fan kessé la gor gu la mayut ñal ku la santage tégué ko à côté ay kessé mo fi nek yeen gor ñi tamit na ngeen jël jigen ni xolé leen comme sen sœur wala ngeen xamni jigen mo leen jur mais bu leen di santage jigen ni parce que sen doole demeewul non gis nga jigen bu santas ak nit mu di la santage tégué ko à côté nit ki loy def na naturel def ko ak xol def ko ak amour mais amour lu mu bokul man buguma. di leen wax ni rek xam leen fi ngeen di teg seen tànk àdduna du tey rek ñun ñëpp nag benn ci man amaana man mi di leen jox leçon maa gën a yees mais maa ngi jéggalu bu baax parce que jëluma intention pour wax leen leen loo xam ne da leen di vexé lépp lu ma fi wax rek mu nekk loo xamante ni bii lu bon la wala lu ñaaw la maa ngi koy jéggalu bu wér ndax nit matul nit kese laa damay juum wax yombul maa ngi leen di jéggalu bu baax di sàkk ci kilifa diine yi ñaan bu baree bari di ñaan jàmm yàgg fi ñi ci hôpital yi ñi ci prison yépp yal na yàlla wàcce fi jàmm Mama chérie fatou adoré ya xam nga ni da ngay dundu jobu jubba ya tax ñu dara amal jam bu baax yow ak say mak jël na nuyo bi yépp teg ko ci sa loxo bon duma duma tej nak deug du neex te nuyuma ñom adama sek ah ak ki nga xamne mo jaar ci sama bopp bi dem ko nga xamne ma koy solal sama jam bobu ma ngi koy nuyu bu baax macha allah di wax très si rafet na mom ak rama domam ma ngi len di def ay gros bisous soxu boy ada di len wax ni rek yeen inshallah allah show bi da ngeen ciy ñëw alima show bi pourquoi pas parce que yéen loo leen boolut rek man bëgguma te damaa bëgg ngeen sàjjal ma lu am jom sàjjal ma loo xam ne day bari doole waa ñu daal di wane nag talent waxal jàmm laa bëgg mu feeñ. Takkan ngeen ci andal seen dom seen xarit seen rak wa bëgg na yo di leen wax rek kontaan na ma ngi leen di remercier bu baax di remercier ñi nga xamne ño ci sama cameraman ah ñom fallu Moussa ah deug du neex papa ba comme niko marem di waxe sama salihat bu ñaar ma macha allah soxna may kontaan na ci yeen siga suma ma rek damay juum ah joie je crois que non la tuddu ma ngi leen di def ay gros bisous di leen wax kontaan na yeen imi émission kii bi di ñew nag clip bi di euh ma ngi leen koy may yeen xalé yi góor yi déglu leen Viviane yeen ko mom ngeen yam réglé leen bugguma benn coow tabaski ba ngi ñew sérieux leen d'accord man yéenay samay xarit wa kon na neex wa ma ngi leen koy may yeen ñepp Mariam Siga ah soxna May bàyyiwuma kenn daal di leen wax kontaan naa one love. bu ñuy doxaan si lu ne di nga ko dégg I love you baby ma sweet ma lay de yaa ma gënal sama ndey ak sama baay de sukuram jébalu jooy lu ne ñu def ko love you baby ma sweet ma lay de yaa ma gënal sama ndey ak sama baay de sukuram jébalu jooy lu ne dinañ def li ma métti ba ma soppi